yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi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 ginnaaw bu ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala ci julli ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ziar mbokk jullit ñëpp di ziar mbokk taalibe yëpp di ci jiital ci ziar bi Serigne Mountakha Bachir Mbacké ak noonu it di ci toftale Serigne Cheikh Jëmm Fall di leen dollee ñaanal suñu borom dolli leen fee yàggal lool te ñu wér lool mbooleen lépp lu ñuy naal ngeen liggéeyal ku tedd gi suñu borom kàttanal leen ko ba ñu matale ko kon di amaat mbékkil bu baax a baax di dellusiwaat ci seen émission béytu bis bi ak naafile bis bi comme niñ ko baaxoo ànd ak yéen ci weeru koor yi yëpp tey kon tey ci guddik euh, juróom-ñeenteel bi sëriñ son bi Mbàkke radiyallahu anhu indi na ci indi na ci qurratul ayni mi képp ka nga xamante ni daal julli na ci ñeenti raka raka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon jàng ci tabat yadda ñetti yoon jàng ci ixlaas benn yoon mu ne daal képp ka nga xamante ni def na naafila googu des na ko bindal tuyaabay muñkat yépp ak santkat yépp te dina mel ni wàccee na ab kaamil te des na ko bindal tuyaabay ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ni da ko yendoo woor fanaane ko julli ndeysaan muy lu neex waay te des na digal ñaari malaaka ñuy far ay bàkkaaram di ko bindal ay tuyaaba ba bis penc ba yamul foofu kat mu nit kon tey yàlla dana nangu ak julleem ak kooram loolu rekk moom kéemaan yàlla mu nit te dina ko dimbali te dina ko taxawu yit ba kenn du ko mën a lor te dina ko musal ci seytaane ak njàqareem te bu bis ba dees na ko boole ca ña nga xam ni duñu gis lu leen di ragalloo mbaa lu leen di jàqloo waaye it dees na ko ubbil juróom-ñetti buntu aljana yépp mu dugg ca bu ko neex te dees ko xisaab lii nii lépp nag mu ni ki nga xamante ni julli na ñeenti rakkan ci guddik juróom-ñeenteelu ci weeru koor rakkan bu ci nekk ginnaaw mu jàngee fatiha mu jàng ci eh, tabat ya daa ñetti yoon ak ixlaas benn yoon mu ni ku def loolu loolu ngay am ci pay gi loolu tamit wax dëgg yàlla benn boo ci jëloon rek daanaka moom boo ko amee rek moom daanaka e, mën naa matale sëkk kon di ñaan sunu borom nangul ñu te ci soññaat suñu bokk ñëpp ñu fonk ko te xam ni wax dëgg yàlla e, bis bu ci dem dootul dellusiwaat rawatina koor gi kon ñaan sunu borom nangul ñu ci barkeb sëriñ bi kon ñu dikk ci sunu béytu bis bi ñu koy toxalee ci masaalikul jinaan ci bunt boobu nga xam ne sëriñ bi mi ngi ci mi ngi ko jagleel koor sëriñ bi ma nga ca naan wa kullu man am la a batnahu taam wa akthara shurba alayhi wal manaam fa innahu maal bahimati stawa is faatahu xayrun kathirun fatawa kon mu ne la daal képp ka nga xamante ne ni daal ci waxtu koor maam day moom daal day xéewlu rek comme ni ko njaay ni defee moom daal day daal di xéewlu ba biir bi fees dell waaye du ci am naan it lu romb mu daat koy naan maam naan ba màndi daal waaye du ci yam de moom ginnaaw bu mu dogee ak ba nga xamante ni nii ginnaaw bu dogee diggante dog xëdd daal moom daal lu ko romb ci ñam mu mu yanu lu ko romb ci naan mu daal di yanu nga xamante ni mujj day mujj biiram fees dell waaye nag ku sa biir fees nag looy def nelaw kon mu ni la képp ku boole ñaar yooyu teg ci nelaw kon moom moom ginnaaw boo defee ñaar nelaw rek ngay bëgg moo xam bisu koor guddi koor gi la wala biti koor gi kon ñett ci mata moytu la feesal sa biir ci lekk ak naan waaye ay nelaw yu bëri muy daal képp nga xamante ni noonu nga jàppee koor gi fa innahu maal bahimati stawa mu ni daal kooku na xam ni mook bàyyi may ñoo yam mook mala yi daal ñoo yam ndax mala moom ni nga ko xamee rek lekk ak naan ak nelaw rek la xamee moom kon kii jëfe ki woore noonu daal na xam ne mook bàyyi may moom ñoo yam ndax lan mu ni kon isfaatoo xayrun kasirun fatawa mu ni kon ndax maam e, yiw yu bëree bëree bëree bëri da koy daal di raw ci koor gi ci waxtu woow yiw yu bëri mu mënoon am da koy daal di raw bu ko defee mu àl ko yàlla na suñu borom musal kon nga dégg ci ni koor du ginnaaw boo ginnaaw boo dogee du lekk lépp loo gis nga lekk ko lépp loo gis nga naan ko waaye bëgg cee teg ay nelaw déedéet xoolal lu la doy ci lenn lu ne dog nga lekk la nga xam ne di ci man a oyof nga xam ne sa yaram dina mën a oyof nga mën a def sa jaamu yàlla yi e, guddi gi tamit boo ko mënee di taxaw nga taxawu ko bëccëg gi tamit ñuy bañ a def comme ni ko njaayeen ni di defee rek bu nu xëddee ba noppi rek daanaka dañuy fas yéenee dallu dañuy fas yéenee nelaw ba jant bi di waaj a soo ñu fas yéenee yeewu jàppe noonu seen koor kon loolu mu ni képp ka nga xamante ni def na ko daal yàgg bàyyi may yi yéen a yem ndax lan yiw bu bëree bëri dalay raw ci koor gi ci bis yooyu nga xamante ni mën nga cee am lu yaatu kon lool it mu jara mu doon lu jara bàyyi xel lool di ci soññaat suñu bopp di ci soññ ñëpp rek ñu gën koo bàyyi xel ndax waxtu la wa nga xamante ni bu ñu mën a mànge ay yiw la bu ñu mën a ute ay yiw la dem weeru bonus la bu demee balaa mu dikkaat déwén te déwén wóoruñu ba xam dinañu fekkam déet kon kenn ku nekk na ci profitoo góorgóorlu ci di ñaanal ñëpp suñu borom nangul ñu suñu koor lépp la nga xamante ni diggée na ko ci mu bañ ñoo rëcc ci barkeb sëriñ bi kon te leen ñaanal ndogu ak jàmm waaye it di leen jox dig daje ba ëllëg ak jàmm incha allahu rabbi ci beneen bayit ak ci beneen la wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu